Les euh, nag chacun à son tour chez le coiffeur donc il est temps que Macky Sall rendre la clé de rebus <laughs> la fameuse clé de rebus la clé de rebus Macky il est temps que nous préparions à nous le rendre et que ce grand jour là il fallait le préparer depuis longtemps c'est-à-dire ba nga doon soxor di tëj di rey ne ah kenn yow suba si na ñëw ndax yow yaa ñu jàngaloon histoire na dañuy jël pouvoir bi yow yaa ne woon Firawna dafa demoon ba jël place yàlla yàlla ñëw ne ka moom moom moom àdduna léegi nag fu mu nekk nii Macky Sall pour bañ jël caabi Rebeuss delloo ko parce que moom ku mu dégg ne bu la joxee place bi boo yéegee da koy tëj rek mu récupéré waat place bi li nag fu mu nii set no set set set set wóolu ken ndax ragal rëbës léegi soxna nom yaay bayu Amadou yo yaay bayu Momo ak bayu Adja kor marem foog naa góor bu demé ba tak marem war naa mun am fit lepp lu muy def mu assumer nga delo ñu solennellement la clé de rebeus il faut que tu nous le rends solennellement bien emballé

ah ni o o papo léegi sax séeréer laa lay dégg séeréer aja pap ni ñu koy waxatee sax Amadou et Momo di nga def <laughs> rebossé rends-nous la clé la clé nous appartient maintenant non <laughs> Magué Magué ngi gratter boppam ah moom mu ngi solution nu muy bañ a dem rërs problème Magué problème mu Macky du du dellu gouvernement bi de ni muy ni muy demee rëbës rëbës dama lay préparé psychologiquement Macky Sall benn yoon par semaine nga am droit dem saw yi day moom n'en parlons pas benn yoon par semaine ngay na ngay ngay dem day mooy ah li nga lekk semaine bi yow da koy cumuler sa biir bi biir bi gën a gonflé te maam baax na sax yow boo fay dem benn kaani par jour la lay jox comme saa sa biir bi mun a daw <laughs> mais sa biir buy daw. dañ la yóbbu douze de sa kaw nga koy def <laughs> non la clé <laughs> rends-nous la clé Macky rends-nous la clé la clé de Rebeuss rends-nous la clé de Rebeuss <laughs> non Macky moo ay feebar yow yaa ay dof lii moo tax ba ñu newee ne ne c'est presque la fin ma dem yenn loxo yi ne fin du fi amee je viens de comprendre la chose di ngeen rendre bi de caabi bi bibi, bi bibi. bi moom voyez boobu noonu laa lay tegal toute la journée parce que la clé nous a, va nous appartenir dans quelques instants maam na bëggatul nekk député dégg ngeen garde pénitentiaire lay le prochain président de la république Sénégal na ma ne maam rek bàyyil un mois jaay carotte nga ñëw ñu yóbbu la ci prison bi wala wala récupérer clé ah président bi day yónnee ay garde du corps ñu jël si ma France dugal ma ci avion man maay nekk premier garde garde pénitentiaire boo xam te dañ koy jëli ji dañ koy importé France indi ko Sénégal mu lijjante Macky Sall la ci biir prison bi war a yi partagé leen live bi dégg mu yegg ci Macky Sall parce que bientôt la clé nous nous appartient rends-nous la clé gis fii amul ngay dem ci ay kanamu sëriñ naan waa dama bëgg damay ñaan njekk teraanga fii duñ ci ñaan njekk teraanga rebës par la force ay dem ci à naan wa xam nga kilifa président de la république kenn du ko tëj kaso dañ lay tëj rends-nous la clé la clé nous appartient maintenant Amina maa ni nuyu bu baax clé bi ça nous appartient c'est pas tes députés analphabètes là qui ont été signés des choses qu'ils savent même pas lire et écrire ñom ñoo ñuy empêcher ñu récupérer clé REBUS. bi nga xalé yi nga tëj ni yow ya nek équipe remplaçant bi yéen wa APR yéen a remplacer ñi nek ci biir rebus. actuellement rëbës yéen doo leen dem ay bu fekkee na ngeen foog ne dañu leen di yóbbu Cap Manuel Cap Manuel foofu hôtel 5 étoiles la de yéen fële paquetage lañ leen di teg Mame Mbaye Niang ak taatam yu rëy ba leen ko paquetage même néeg bi ngeen dugal ca Macky Sall taat yu rëy yéen foog naa ne ñun dañoo wow wow ba nga xam te ne bu ñu dugalee paquetage mun nañ ko def 100 mais yéen seen fan ah pour ñu def leen 100 dañ leen di superposer <laughs> man damay imaginer Rebeus rek saa yi mu ngi ko imaginer ah Rebeus Macky Sall imaginer j'ai la joie de vivre bul daw de sois un homme avec un grand H Qui nous rend la clé et que vous remplacez ceux qui sont là actuellement xale y a leen nar a remplacer Et qui remplace. remplaçant bi rek non et gars yi na ngeen ko. na ngeen ko baral noonu xaw koo ralentiral noonu tuuti rek ba ñu récupérer clé bi man clé bi rek moo ma intéressé dans toute l'histoire dara ma ci Macky Sall rek ma intéressé les ressources et tout ça ndax caabi rëbës bee mu feebar dafa toog calculer mu ne il reste trois semaines donc dans trois semaines ma delloo caabi rëbës mu ne bu ma ko joxee Amadou de Pita dina ñëf sama ndey ci kaso bi bu ma ko joxee. yi dina ñëf sama ndey ci kaso bi <laughs> mu calculer comme que ñëw Pascal man li niw ma Macky Sall xoola xoola xool bopp bi di métti mu ne donc naawut benn solution parce que booy bi nekk Qatar moom ñam na kaso moom ba fa nekkee dafa dof moom moom moom xam ngeen benn métis rek nga jël ko dugal ko paquetage dafa dof elle était devenue fou Ah, vous êtes revenu Oui, je suis revenu, j'étais ah, partie. Oui, oui, je suis venu, vous pas là. Non, parce que j'étais partie chercher des caches. Ah, d'accord, d'accord. Parce que comme je prends un café crème. D'accord. Oh oui. Un petit café crème, vous voulez Oui. Est-ce que, vous avez du jus de détox ou pas Non, malheureusement, non. J'ai un petit jus d'orange pressé, si vous voulez, euh, et avec un croissant, ça fait une petite formule. Non, pas de croissant. Vous n'avez pas de citronnade, non, Donc je prends que le café crème. Eh ben, très bien. Merci. Légui Khaoui là. Ici, vous serez mieux. Hein. Ah, bon, regardez, vous plus par là, vous serez Pourtant, plus. Autant non, comme j'ai mon manteau, j'ai pas froid, ça ah, va. D'accord, mais ouais. s'il y a un petit peu de pluie, ça vient par là, et alors que là, vous avez rien. Non, mais j'ai vite fait. Euh, c'est tout juste un café crème et je repars mon. Moi, j'aime bien les situations comme ça Moi, boo xam te ne président bi dafa coincé mënul dugg mënul génn waroon nga xalaat bés bi nag Macky Sall ndax balaa nga doon dugg di jël président yow xamoon nga kan muy Firawna ak li Firawna dajo li mu daj la woon population ak Sayon yoo xam nga ne Sayon Firawna moo lay waaj jot ñun rendu la clé de Rebeuss seulement le reste on s'en fout gérer dëkk bi day tàkkax du tàkk yëpp c'est plus problème institution yi dafa jaxasoo bëggoo wàcc dëkk bi tàkk dëkk bi du tàkk dégg nga yow yaay fi kenn du fi rey kenn dëkk bi du tàkk boo xoolee dëkk bi day tàkk déedéet yow yaay dem rëbës ak mareem instant bi li ngay daw ah dawoo dawoo leen de rëbës ngay daw maintenant je vais le dire en français parce que Macky il veut pas rendre le pouvoir parce qu'il veut pas aller en prison il a tellement volé volé tué. maintenant quand tu voles tu tues attends-toi un jour que tu ailles en prison donc il ne peut pas aller en prison parce qu'il a fait trop de mal à la population sénégalaise. Là, il peut choisir la personne qui le remplace pour qu'il ne puisse pas aller en prison. Donc il n'y aura pas d'attentat de nouveau d'État. C'est un nouveau qu'il veut stimuler, mettre en, en, un général qui peut le remplacer pour qu'il n'aille pas en prison. Mais il va aller en prison parce qu'il a tué des centaines de personnes. Tu ne peux pas tuer des centaines de personnes emprisonner les gens injustement et voler euh, l'argent du contribuable et ne pas aller en prison. Donc il va me rendre la clé de la prison, là où il mettait les gens, là où il a mis 3000 opposants. Il va me rendre la clé. Et lui, il va aller en prison. Qu'il le veuille ou pas. Même s'il rentre dans le trou de balle dans, dans Lyon, on va aller le chercher là-bas et récupérer la clé de Rebus et l'amener en prison. Comme ça, l'État est là parce qu'il a pris des députés analphabètes pour signer pour reporter les élections Maki avait vraiment préparé son coup pour se dire que oui si je peux pas si je peux pas si je suis sûr d'aller en prison je prends des députés analphabètes vous comptez les députés de de Macky il n'y en a pas un qui sait lire et écrire donc ils ne savent même pas ce qu'ils ont signé à partir du moment où ils ne savent pas ce qu'ils ont signé ce qu'ils ont signé est caduque donc Macky on va organiser des, des élections, que le veuilles ou pas, et toi tu vas dégager, tu vas aller en prison. Et tu nous rends la clé de Rebeuss, là où tu mettais les gens. léegi nag wax bi leer na Macky Sall maa ngi sama café dem liggéey dégg comme ça nga xam ne ni généraux boo fi mënti teg tamit ah benn généraux bu mu fi njëkk a teg rek dam leen taal ndayu kër généraux bi Macky Sall du moom moo ñuy tànnal ku fi toog moom day dégager ñun ñooy tànn ku fi toog ndax moom ba mu waree toog ay nit dañoo demoon urne votel ko kon ki fii toog tamit nit yi dañuy dem urne voter ko du moom mooy toog ben benn généraux ne oui le généraux vient comme ça tu vas pas mettre en prison espèce de ñaari puce pour ne pas bañ wax tour bi ñu fermer sama page defal affaire de bour ya jur ñetti doom bour nga hein ah, né nañ bour deug waru ragal prison léegi yow loy ragal prison pourquoi tu as peur looy ragal da ngay dem da ngay tëdd da ngay paquetage sa taat yu rëy yooyu noonu bu ñu ko boolee taatu mambay ña ak taatu farba ngoom ah paquetage yéen paquetage seen yomb na yéen dañ leen di superposer yéen da ngeen rëy xam nga mën nañ def 100 personnes ci benn néeg mais yéen da ngeen rëy a rëy a rëy ba ñu ci defee 4 néeg bi day fees yéen dañ leen di dañ leen di dañ leen di superposer mooy Macky Sall bu tëddee dañuy jël mambay ñaa dëj ko ci kawam teg farba ngoom jël yeneen sàcc yi dëjaat leen ndax yeneen seen taat yi dañoo rëy seen biir dañoo rëy

Macky sa santé dégg nga non xew bi man mosuma am xew bu neexee nii dama koy xaar avec impatience jour bi ñu jàpp Macky Sall mënatee rek ñuy mënatee Macky Sall taatam yu rëy man maa lay dugal rëbës bi nga vacataas boobu noonu man maa koy organisé ndax man xam naa pataay yi naka lañ leen war a dugalee pataay yi xam naa naka lañ leen war a dugalee rëbës ba du am dégâts collatéraux ndax taatu Farba Ngom yi mënoo koo tànc tànc taatu Macky Sall yi mënoo ne ndax yéen seen daal yi kenn mënu ko tànc seen biir yi kenn mënu ko tànc yéen dañ leen mun superposé comme ay liw superposé rëbës ce sera beneen rëbës lay doon du nekk yu ñuy tànc nit yi dañ leen superposé <laughs> mooy mun nga jël Macky Sall tërër ko teg ci Farba Ngom tegaat gi encore <laughs> Macky Sall yooyu yaay nekk ci suuf yow ah yaay supporté taatu Farba Ngom yi Farba Ngom supporté taatu Mame Mbaye Niang yéen dañ leen superposé ce sera la première fois ah paquetage superposé lay doon lii superposé organisé par membre yooyu yooyu man rek maa ko mën a organisé parce que Sénégal du am kenn koo xam te ne am na diplôme organisé jël ñu pataa ñu mel ni yow seen biiri rëy dugalee repose mun leen naa organiser parce que organiser pataa dafa xaw nit parce que am na noo leen koy defee dañuy dee te waruñu dee waruñu dee léegi comme waruñu dee xew dafa am ni ngeen koy organiser da ngeen wut koo xamante eh, ne am na am na compétence bi pour jël ay pataas superposer leen rëbës dans les meilleures conditions à la hauteur de leur crime te loolu maam rek ko mën a def Sénégal ba mu daj man rek ko mën a def dégg ngeen kenn mënu ko def kenn kenn kenn kenn amul kenn ko leen di woo ba mu ne la mun na organiser taatu Macky Sall yu rëy ah ak taatu Mame Mbaye Niang yu rëy yéen nga xam te ne yéen ak jeeg yi nekk Sénégal yéen a koy defante ak taatu Farba Ngom yu rëy seen biir yi ngeen di mel ni ku nekk enceinte 9 mois te kenn xamul te ngeen di accouché maam ngeen di woo rëbës boobu man maa koy géré bu président Ousmane Sonko demee ci kaso bi dañ ko ne maam nee na benn poste rek lu postulé Sénégal mooy ngeen yóbbu ko rëbës même bu dee da nga fay affecté un mois doy pour ma toppatoo Macky Sall Mame Mbaye Niang ba moom seen xeet yooyu ñu gën a pataay ñu pataay ñëpp la ñuy jël ñett seen ndey ci benn kaso superposé leen boo leen bëggee day ngeen dayante seen biir <laughs> soo leen bëggee saw ngeen sawante seen biir <laughs> dinañ dem ba ji ah, nga chinois yi xam dañuy lekk day sekku day ba mutuwul ah damay dem demandé chinois yi naka la ñuy defee sekku day première semaine yi ah, seen day yi la ñuy jël dafa leen ko sek ngeen lekk nee nañ taw baax na xam nga ni yéen waa Rebeuss da ngeen ko fay teg di leen wàcc di leen def ndox yéen doo am ndox yéen seen taw yi seen première semaine seen taw yi boo leen sayoo ba pare seen taw yi ngeen jël ngeen naan mooy ba defee une semaine yoo xam te ne seen day yi ak seen taw yi ngeen di naan di ngeen xam ne bienvenue Rebeuss bis boobu la ñuy wax Rebeuss bis Rebeuss bis nag maam ma war a nekk directrice bi. <laughs> di ngeen xam ne la vengeance est un plat qui se mange froid sama gars yi partagé leen ba Macky Sall xam lan la rëbës biis nar a mel man fii laay toog di xaar rëbës biis bu jotee dama bëgg rek yéen Sénégal yëpp ngeen voté ngeen ne maam ngeen jël mandaté ko pour mu toppatoo rëbës biis li nga rëbës biis man maa leen di à la hauteur de vos crimes ñi ngeen rayat yëpp yëpp yëpp di ngeen defal ne yéenay nekk premier sénégalais yoo xamante ne nourri par le steak de caca li nga xam te moom la chinois yi di lekk ak bi pipi. après nag bu fi kenn naan waa da ngeen soxor <laughs> Macky li mu def nit yi tëj leen ba ñu ba ñu dof ci biir prison yi ñii mu leen di rey di leen torturer xam na lu tax bëggul delloo caabi mais rends-nous notre clé. rends-nous bi delloo ñu ko comme niñ la ko joxee woon clé bi bu ñu jox. clé bu baaxul jox ñu vraie clé bi original bi nañ la ko joxee woon nombre de clé ya mu nekk rëbës nombre de clé yooyu noonu jox ñu ko ndax yéen yéen a dara ëpp ña nekk rëbës. donc maa leen di ñaan ñi doo a dugg ci laay bi bu leen neexee ñu dem seetaan début bi maam pare na day naan caféem dem liggéeyi di xaar Macky Sall delloo xaar caabi rëbës bi man ka sama wax du ci jeex dinaa continuer jaay sama carbone active ba nga delloo caabi bi.